nag ñu ngi fii eh, di jël koo xam ni miin nañ ko xàmme ngeen ko ci ci li nga xam ne moo di réseau yi muy Yaay Fall mu fas yéene sekk ak ñun waxtaan bu yaatoo yaatu ngir indi ay leeral waaye ay clarification ci li nga xam ne moom la war a leeral yaay noo def. waaw li may njëkkee mooy damay njëkkee auzu billaahi mina sheytaani rajiim damay muslu ci seytaane ba pare. soog a wax auzu seytaane rajiim yàlla yàlla musal ci seytaane maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi si nu taxaaba si du ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal bépp jullit bépp taalibe ziar naa ñëpp di koy jëm ci ñi nga xam ne mooy presse bi ban waxtaan bi xam nga ko mhm. joroon nga may laaj loolu mhm. dangay ñëw ci dëgg dëgg waxtaan bi li ko waral rek mhm. ñu tënk ko mu jeex parce que émission bi laajul gudd ci émission bi may def kenn doo nga tax ma def ko ginnaaw yàlla kenn nit muy waale mais du bindee ful bu tax ma def émission bi mel nit kaw ginnaaw yàlla mm-hmm. ak famille ñoo tax may def émission bi mais amul keneen ko tax ma koy def mm-hmm. Mm-hmm, mu génne ay polémique am ñu génne di wax waa dëgg la Medina TV laa ko waxee woon soxna jaar laa si doon waxal yéen yéen a seeni bët di seetaan bi may wax émission bi ma si wax damaa tontu ñu bari wax ji yegg seegul parce que wax lu muy neex-neex dégg-dégg ko dàq waxin neex na lool mais dégg ko dàq ci biir wax ji euh, am na ñoo xamante ni seetaanuñ émission bi dañoo dégg rek gis rek ñu jël photo Yaay Fall taf ko ci internet bi kuraa ko man maa defoon kabul man maa toogaat ne ma wane sama kanam amul lu may def di làqatu amul lu may def di nëbbatu amul lu may def di cirikile bi may dee yaay faal di yaay faal ba tey musuma taxaw ci internet ma wax nit lu salte wala ma wax nit lu ñaaw wala ma fenal nit wala ma wax lu ma gisul ndaxte wax ji lépp li ko waral mooy si li ma yaakaar boobu parce que nit ko ne yaa xam la tax nga wax li ma ne wàññi bu maman jaaga wàññeekoo dañ koo téye la yëgale ku nekk ak sa dégg-dégg ndax yaakaar naa ne samedi la wàññeeku dimanche laa def sorti boobu te intention bi ma ci jublu wax ko mooy ma maman jaaga doonte jigéen la mais kilifa la ñun nag yàlla dañuy may ñuy gis di wax te li ma gisloo di ma wax saa yu ma gisloo damay wax intention bi ma si jël woon mooy Mama jaar ñu jël ko ci sutura denc ko ci sutura ndax mënul ñàkk sax mu siiw mais dañuy wax à chaque fois ne euh, cat sax da jiitu ci sa bàmmeel loolu ku ne dégg na bàyyi dëgg gis ko da ci dëgg seen tànk day kilifa nag te moom musul bëgg feeñ ay tele doonte doomam da koy feeñ nit sutura la woon nitu nit ku sel la woon nitu yàlla la woon kon mm. kooku bu génnee àdduna dañ koo waroon a defal lépp ci sutura ndax man de doonte xaw ma ko doomam laa xam waaye ku gis ay image xam ne moom nitu yàlla la ndaxte bisu soxna jaara bu solo bisam tombanteel bisu soxna jaara bisam tombanteel muy bis bu sell yaakaar naa ba mu wàccee ba tey dëkk bi climat bi fi gis sax par rapport ak ni maloon kon kooku kilifa la li ma waxoon nag du ci topp di ko répété mais nañ dem digluwaat bu baax li ma wax ba may wax dama ne di nga wax say wax sax nit dagg say wax jëlee ko intention bu ñaaw fekk lu rafet nga ko waxee man nan laay bëggee waali di yëkkati kàddu yi ñaaw di ko teg ci ginnaaw waajuram loolu xel mu rafet sax nangu ko mm. ndax man ku ma bëggul woon sax maanaam mën na sama noon sax bu waajuram wàññeeku kooku lu rafet laa koy seedeel rawatina koo xam ne man dama taxaw ma wane ne man dama koo bëgg man Wally se Cheikh Ibra laa ko jàppee dama koo bëgg ngir Cheikh Rafal bëgguma ko ngir succès bëgguma ko ngir ko ngir mu defal ma dara ndax kenn mësul gis yaay Fall ñaan na Wally lii wala ñaan na Wally lee nit nag dinaa la jege lool nga foog ne ku la jege la waaye ka la sori mooy ki la jege waali intention bi ma jël ci moom mooy jàpp ko ngir Seere Faal te lépp loo xamante ni lu ñaaw lu may gis ci moom su ma si amee sama sarax bu may def dama ko si def su ma amee ñaan bu baax bu may def dama ko si def dégg naa lépp mais li ñu wax chaque jour rek li tax ma yokk ko leeral ma répété ko mooy Waly Seck na xam ne yaayam suñ yaay la man dañ maa yar ci diine yar ma ci lislaam ay kilifa yar ma te gis nga nit su amee kilifa du jéggi baaraas man njaareem laa dëkk ñëw ndakaaru du fi liggéey dama am yaay dama am papa dama am famille dama am ginnaaw te gis nga nit ki danga war a xalaat sooy wax wax bu ñaaw ay kilifa dañ lay seetaan ay kilifa dañ lay déglu te yenn saa yi nga jël intention yàq nit fekk yaa ngi yàqal sa bopp ndaxte yow soo waxee wax bu ñaaw jëmale ko ci doomu aadama ku la xamul sax dalay ragal ndax danaa kii yàqkatu nit la ña waxkatu ñaawteef la te waxkatu ñaawteef ñëpp a koy daw te man de man yaay faal du ma mës yëkkati sama moroomu doomu aadama di teg ci moom wax bu ñaaw wala ma di ko def jamais duma ko def parce que yarew ñu ma loolu dañ ma yar ci diine yar ma ci ngor yar ma ci lislaam yar ma ci fulla ak fayda ak personnalité daraay lu ñàkk fayda duma ci dox damay ànd ak dal ànd ak tey di massaw Wally di ko jaalewaat yaayam di ko ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla na xippee ji sa àjjanaay firdaws ci barke Cheikhul Xadim man na Wally su ma ko yéenee lu bon wala ma yéene ko lu ñaaw wala ma yëkkati wax ju ñaaw di ko ko wax yàlla na këpp waat sama kaw. parce que jaara bul wax man maay wax. émission bi jarul mi parce que question yi ngeen di posé jarul mi parce que nee naa mhm. wax benn pour mu gudd mu gàtt. Mhm. mooy famille Wally Seck ku ne woon a ma mais amul benn nit bu ma ci wax lu ñaaw mhm. amul. barki sëñ Tuubaa yàlla rek laay seedeel li amul ku ci yëkkati kàddu gi ñaaw ñi nga xam ne ñu bokk ak waale lañ. amul ku ci yëkkati benn kàddu bu ñaaw wax ma ko wax ju rafet rek ngay wax yaay Fall seetaan naa émission bi gisuñu si intention bu ñaaw koo ci jël amu ci mais may waxaat yéen ñi nga xamante ne yéenay famille Wally Seck maa ngi leen di jaale waat suñu mama jaaga di ko jaale Wally Seck Wally chèvre laa la jàppee te moom laa lay mas a jàppee ba keroog ñuy dee bi si topp mooy di jégalu famille Wally Seck bu fekkente ne Yaay Fall wax bi mu wax déranger ne la pour ñoom bi si topp muy sénégalais yi nga xamante ni ñoom gisee nañ wax bi ci fi ñeneen ñi waxee te nekkul foofu ñoom laay jéggaluwaat sénégalais yi nga xam ne ñoom xamuñu parce que jëlawma ko intention bu bon wala bu ñaaw nit musul gis ci internet bi Yaay Fall santé nit nit musul gis ma wax wax bu ñaaw te duma ko wax ba keroog mooy dee te nit du te nit du tax may wax lu ñaaw di leen ko jaale di leen massaw ma répété waat ko ñoom ñoo tax ma def émission bi. Mhm. maa leen koy jaale di leen massaw di leen jéggal te ngeen seetaan émission bi ak xel te seetaan émission bi ak xel bi si topp mooy euh, dégg naa ay nit yu wax dégg naa leen te aussi tamit gis naa leen gis nga nit. am na mais nite moo jafe te ñu dëppale caméra yi ngay wax rek neex na lool mais xalaatal après bu caméra yi dippee ko ba ñibbi bala sa kër yow kese mu ngi mel ne doomu aadama buy dund nga nekk ci suuf kaw suuf di wax lu la neex waaye bis boo dee yow kese yaay beru doo fekk kenn yow dong sa bàmmeel man lu may wax ba wax ko mooy yéen ñi yëkkati seeni kàddu di wax duma leen tontu ndax xam nga lu tax duma leen tontu waali man dama koo bëgg te du nekk ci naqar may tontonte kon day mel ne lay am safu duma tontonte nit xëy na nag wàññeeku suñ mama jaaga dafa am am ñu ci profito am seen naqar bu naqar bu yàgg ci ñoom ñu bëgg ko see jaarale bu leen jaarale ci wàññeeku jàmbur gi ay coow bu leen ko ci jaarale xam naa lépp nag man xam naa ni di dingeen a gas seen kàmm ba mu xóot ngeen taxaw def seen coalition kan ànd ba wax ci yaay faal mais yaay faal mii di leen ko xoolee nii ngeen ko gisee te maandoo ci moom nii man nag sëñ Bàmba laa bëgg Cheikh Rafal laa doyloo duma tëkku nit duma wax nit lu ñaaw duma wax nit lu salte duma tontonte waaye yéen yëkkati seeni video tudd sama tudd ah si écran te dawoo leen ci dara wax ma ci ay wax yu doy waar dégg naa lépp nag duma répété waat duma tudd turu kenn duma wax dara mais wax ngeen lu leen neex waaye na ngeen xam ne guerre bi ngeen ma déclaré pour ma ne si internet bi leen tontonte duma ko def duma guerre ak yéen si ay wax fii nii koo xamal xamal na la lu ko raw noppi man maara laa maag docteur yam dañuy xam lu bari ëmb ko noppi duma wax waaye na ngeen na leen leer ni yàgg na am nag ñoo xamante ni bëgg nañoo wax si internet cokkaas yaay fan mais ñu ngi doon insister mais damay diggal ñi nga xam du ma ne kenn bul wax dara de waaye damay jàllale benn message mooy la wax démb laax tey ku la dul tooñ bul ko tooñ te nit koo xamul dee ko woowee e maa ngi seetaan internet bi nag gis naa façon sëriñ bu nekk jaar na fi lu ne wax ngeen ko sëriñ si wax bu ñaaw bu ne ay vaar lu ne def ngeen ko sëriñ si man kenn musuma vaar parce que lu may wax dama koy maîtriser ne ñëpp delluwaat YouTube mi tàppe yaay Fall xool émission yi ma def li ma wax si nit ñi ak ni ma site ba xam loolu gis nañ ko wala gisuñu ko wax naa fi lu ne gis nañ fi lu ne te xam-xam boo ko amee dangay wane li nga mënee te awma intention di kumpaloog ay site internet ñu may waxal lu ma waxut wala ñu ma koy def ñu ne xamuma dara na ñëpp toog di seetaan duma ne kenn bu ma tooñ de waaye ku ma tooñ man yaay Fall maa ko wax ku ma tooñ en public laa ko wax dootoo ko defati man ku ma tooñ dootoo ko defati man du ma tooñ ku la dul tooñ bul ko tooñ ay wax nag laa wax te olof njaay nee na xalu ndeef bu gëm gone gu yamati da kay moytu te gis naa am na ñoo xam ne yàgg nañoo bëgg a wax si yaay faal amuñu fit bi ñu ngi doon insister di xaar bii nooyu sama wax nag mooy ba booy dernier wax mooy bii si wax si ku may wax ci sama ginnaaw lu bon bii mooy dernier wax bi mooy que tontu naa ñuy waaja wax te waxaguñ li ñu lokk denc ko te waxaguñ xamee naa samay noonu xamee naa samay soppe xam naa ñi ma bëgg xam naa ñi ma bañ xam naa ñi ma yéene defet ndax wax ji am na nañu ciy profitoo lépp yëg naa ko lépp mu ngi ci sama digg loxo yi téere ni ngeen ma gisee maandoo leen ca man noonu ni ngeen ma gisee maandoo leen ca man noonu man nit ñi ma bëgg bëgg nañ ma ba pare ñi ma gëm gëm nañ ma ba pare soo jëlee sa wax ju ñaaw di ko wax pour nga dama yàqal yaay faal dootul waxati yaa ngi nax sa bopp man nit mënul tee ma wax ci internet nit mënul tee ma wax ci internet sama liggéey laa yor di ko liggéey di ko doxal yéen nag ma répété ko yéen nag yéen ñi ma déclaré guerre duma leen xasante duma leen tontonte parce que nee leen dëkk bi am na yoon te taf foto jàmbur wax ci lu ñaaw sa ku ne xam na la si mën a fekk mais duma ko def ndax nee naa leen waali sama nawle la dama koy jaalewaat di ko masawu santuleen wax yi ñaaw yi ngeen di def waaye nag man boo mënu wax lu baax bul laal bul jege laa tudd gis nga soo ma waxee lu ñaaw na ñëpp toog di seetaan seeni bët la lay dóor sax doo ko gis li lay dóor doo ko gis man a sama lépp jër yar laa ko teg ak teggin ak taalibe man xuux dàquma doomu gaynde laa xuux dàquma ñu fi nekkoon ñépp di liggéey yàq ngeen seen liggéey bàyyi leen di tuumaal gor bàyyi leen di yàq gor bàyyi leen di waxal gor lu mu deful bàyyi leen ku siiw ngeen jug xool la mu tifam bu ñaaw wala ojoom bu ñaaw wala wax bu mu wax ngeen critiqué ko bàyyi leen loolu jiit yàlla moo koy def te man nag du ma def jiitu ba pare ku wax ma tourné tontu la duma ko def parce que man ak ñoom bokkuñu niveau bokkuñu ay qualité bokkuñu ay façon na ngeen xam ne nag tooñ ngeen alalu Cheikh Fall ngeen alalu sëñ Bamba loolu rek laa am si lu ma mën a wax C'est bon. C'est bon.